à Rebus, dans différentes rues de Rebus. Donc quand on dit le plateau sans sable, il ne faut pas que ceux qui ne connaissent que l'avenue Saro pensent qu'il n'y a pas de sable au plateau. L'assainissement, on y a beaucoup fait. Et également, toujours ce programme sans sable, rehausser notre trottoir, les galets, pas taxaw de naa aussi ñi nga xam ne xam-xam bi bëriwul nee na ñu pavé lañ ne wala nga ñu avec les galets ma jox ko exemple corniche bi ñuy defar dañ ko paawee ñu ngi teggi paawee bu dafay daal parce que moo gën ça n'a rien à voir donc c'est rehausser les trottoirs, les, les dalles, mais surtout également planter des arbres et demander à la population de nous aider sur ces kon nag mbokk yi bu ñu naan le plateau sans sable gox yi ñoo tax ñuy wax te askan bi dëkk fii

RSI n'est pas oublié j'ai entendu quelqu'un taxawal mu dire waa ñun ñaar Thioker defoo dara il ou trois jours j'étais là-bas de proximité gis naa ne ñun ci biir ko baal dañ koy wax leen euh, ça aussi je de pique ce quartier ñi ko xam amuloon benn mètre linéaire bi du ko lépp suuf loolu tey amul benn mètre linéaire le lépp dañ ko mais la pique c'est quoi voilà ce genre investissement qui ont coûté zéro franc à la commune donc pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai parfois les excédents donc le maire c'est pas uniquement le budget municipal alors taxawal tuuti xaw ma ko xam fii bëriwuñ c'est des camions et des camions de sable de grands arbres qui avaient fini de pousser xoolal ni mu ci tali bi pour vous dire le nombre d'années que ça a pris que nous avons dû attaquer pour le faire refaire la route refaire ces trottoirs Ça mbokk yi foofu koy occupé waat waaw maa Palais au Delmas ni xam plateau xam nañ place de l'indépendance boo fa daan jóg di wàcc Palais Delmas di ville de Dakar c'était un véritable boulot d'étranglement chaque jour def naa ci ay lettres bind un jour j'ai décidé que la commune le prend en charge quartier vie. taxaw ne defuma dara daf ma jam moo tax ma génnewaat lii ñu ñun lii lañ plateau lay wax sama saya sal suñ fi la juddoo lii lañ fi fekk canal boo xam ne bu yàlla maximum la ci daan mairie daan kenn bëgguloon dem foofu ci ñi fa dëkk di wax tabaxaat nañ ko agrandir ko tëj ko defaraat tali bi ko def fa éclairage public mënoon naa fa waaye foofu tey dañuy tabax seen jàkk pavé ak beneen côté bi defar fa vingt logements yu bees

deuxième phase. xaalis loolu aussi mais nous nous aidons les étudiants parce que nous sommes lañu alors que dans les communes ma responsabilité c'est l'élémentaire C'est da nga gis ma defar école seen C'est du ma du mais parce que vous ma faire, vous avez des facture de perception vous ne neexee pas, ma parce que c'est pas ma responsabilité bi ma fii ñëw ci bor yi ma leen wax am na ay boru école ay ndaw ñu yóbboon ay école facture de perception mosu ko fay ma ñëw jëm ko fay perception nangu koo fay ñu ne Aliou leen soxore moom lañ fay te ñoom ñoo leen sànn kon aussi texte dañ koy xam xam sa wareef les étudiants nous les aidons sous forme d'aide pour le même le 17 seen 150 000 francs à moins par étudiant sans aucune discrimination comme ça a le public, dans le public et quel que soit le lieu de formation mais sauf coppite am on est connu de plein exercice de la force mondiale, pour aider les enfants qui ont des formations peu chères voir ce que justement ce tutorat ce système de bourse comment le mettre en place mën a dégg léegi ñu bëri ko def chaque année ñu ko daan dajale bu ma juumul plus de quatre cent enfants profité nañ pour aussi xamal leen aada cosaan ci parc